gërëm tamit suñu juge yi bien sax que ne du suñu wareef wala suñu wàll ñu def ko ndax seen liggéey la waaye bu ñu gisee ni ñu taxawee tey sensu grandeur justice bi ñu wane li ñu war mooy delloo leen jukkal parce que nag euh, dossier bi xawoon na grave trop waaw nit yi ñu ngi doon wax passion yi xawoon na déchaîné waaye ñoom bi ñu ñëwee ñu njëkk rassuré mooy sérénité bi dégagé tey déglu nañ ñëpp dagguñu kenn xasuñu kenn daluñu kel saytu nañ dossier bi xool ko si anam yëpp jàpp ne ñi topp nii waxuma sax ne li leen toppee si yoon juridiquement parlant si yoon amul élément yi war tax ñu bàyyi leen mais dañ ne fay si boppam amul moo tax ñu renvoyé leen des fins de la poursuite donc loolu dafa am solo ñu rappelé ko dañuy lancer un appel man bokk ma benn mouvement politique waaye dañoo bokk si dëkk bi appel bi ñuy lancer ñu ngi koy lancer à l'endroit des autorités politiques publiques ñi nga xam ne ñoo ñu yilif ñun ñëpp pour wax leen ne jàmm la ñuy ñaan si réew bi sérénité la ñuy ñaan si réew bi te dossier bii nag nañ ko wax rek tëddee jurul leneen lu dul ñàkk sérénité ñàkk jàmm. moo tax nag ñu leen di rappeler parce que am na suñu yeneen doom suñu yeneen raq suñu yeneen mag ñi nga xam ne ñu ngi ci réew bi ñu bàyyi leen ñoom ñu ñibbi kër ga. ku nekk dellu say occupation te xam ne li taxoon li yëpp am weesu na romb na mi ngi si suñu ginnaaw nañu dem jóg kanam kanam dem jëpp kanam te liggéey réew bi loolu mooy suñu waraf ñun ñëpp. D'accord, rappelez-nous le nom. avocat la Cour.